Rewmi dal leen ak jaamu mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo si yaa den encore jëyee ñaaw TV taal kër ma ngay gën a ci Sénégal ginnaaw ba ñu nemee ko madame Aïda Mbodj ñu daal di taal këram lii du saytu Pastef it daal dinañ koy taal ginnaaw la xewoon euh, démb muy euh, waa Benno tey jii loolu la ñu fi ñuy wax ak yéen nag kii di Waly Bodian Diouf Waly Bodian Diouf mi moom attaqué nañu këram fii ñuy wax ak kon daal jamono yi moom euh, Sénégal mun nañ ne à ah, danser ci guerre civile la ñu jëm loolu yëpp lu ko waral mooy euh, leader boo xam ne nanguwuñ mu génn euh, nanguwuñ mu woo ay ay ay militant am loolu lañu ñu nemmeeku kon daal dictature moom moo am Sénégal askan bi nag fépp na duñ ko nangu waaye it waa pouvoir bi kenn ku ci nekk yaa ngay def sa mënin di wax garsa garsa ku ma ko def ma def la ko loolu la ñu ko kon fii ñuy wax ak yéen daal mooy Waly Diouf Bodiang bi daal dinañuy attaqué këram. kon euh, foofu la ñuy toll ñu bari sax ñi ngay wax ne alerté préparé wu leen te xam ne kii Ousmane Sonko à tout moment gars yi mën nañ songu këram heure bu ne kon ñu vigilant bu baax te xam ne jamono yi toll ni Sénégal moom lu nekk ñu ngi koy gis ndax gis nañ sax ay nervi yu yor ay armes nekk ci mbedd yor seen ay pick-up taxawaalu kon daal euh, Sénégal fii la toll fii ñuy wax ak yéen mi ngoog Waly Bodian Diouf daal nañ koy attaqué jaa ngi jëf